عسى ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen bokki taalibe yi jàkkaarloog noonu noonu yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare bépp taalibe ak foo mën a ne di ma dégg mbaa nga di ma gis gannaaw bu nuyoo sëriñ Basiiru mii nga xam ne moo nu indi fii ci tool toolam bii fii ci Thiel daf maa jox sama leetaru bopp woo ma ci maag sama njaboot ma ne ko nangul naa la ko ndax sama baay Daaru Salaam Jóob gii loolu la ko sance dafa ta dafa ba mu koy sanc 1966 jëm 67 temps yooyu la sancoon dëkk bi waaye dafa yónnee ci borobu sëñ Tuubaa ne ko tàggul ma ko ne ko dama bëgg fu may jaamoo yàlla yar fa sama njaboot di fa liggéey di fa am lu leew di ca joxe addiya di ko dundee kon nag bu sëñ bi jëlee leetar ne ci gor yu mel noonu sant na ko ne daa bëgg ku ko goral dee jil ko loolu dañ ciy sawar ndax nun loolu lañ nu yaree lool lañ lool ci la ci nuy xëy ba màgg nii kon nag noo ngi ñaanal sëñ Bass toolam yi doon tool yu barkeel mm. waaye yàlla def defal ko fan wu gudd wu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu yaatu tool ya ci yàlla def barke sun xol sedd na ci sant gi mënu ko sant ma sant ko tund woon nu ànd ñëw kon nag sëriñ Bas ku baax la ndax waa kër sëñ Touba ne baax na loola dara desu ci waaw te ko nun ñëpp dégg na xale yi fi xalifa yi fi jaar li ko waxal waaw sëñ euh, sëñ bi li mu waxoon mooy sama tànk mooy sama bët mooy sama làmmiñ euh, mooy léppam loolu fu julli nekk dégg nga ko kon daal sëñ bés toolam yii noo ngi koy ñaanal tool yi dool yu barkeel yu am solo loo xam ne lu fi sàkku rek yàlla na ko am noo ngi ñaan fanam gudd di ñaan ab xalifaam yàlla bàyyi ko fi ak mboolem waa kër sëñ Abdou Khadir gi waaye nag di ñaan sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa yoon wi yal na ko fi yàlla yàggal yal na yàlla jox murid yal na yàlla yàgg jox eh, ay ndigal murid yëpp nu yàgg ne ci gannaam di ko jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ak yéen fii ci daara yi Hisnul Abraar eh, di Thiel di daara ji nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Basir ibn Cheikh Abdoul Khadir woote ñu di ko gor eh, yéen a ngi gis nag eh, réaction yi nga xam ne mi ngi am ci biir liggéey bi di dégg kilifa yi waaye nag ñu ngi ci dalub Serigne moodu Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Bachir eh, mu ànd ak waa Saloum gépp nag ñëw wuy si juram waaye wuy si nag turandoo maamam ànd ak mbokk yi ci liggéey bi ñu fekk ci dal bi ginnaaw boo xamante ne bii toll nañ ci war a noppalu ngir jugaat dañuy bàyyee kàddu gi ak Serigne Modou eh, yëg-yëg bi ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci liggéey bi Cheikh Mouhamadul eh, bashir woo ko ci ci turu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha waa kay jërëjëf bokki taalibe ñu ngi leen di ziar bu baax tey sant ci jataay bii nga xam ne ñu ngi ko jotaayoo ci barab bii sant bu baax a baax sunu kilifa yi tàmbalee ko ci ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des Mourides di sant bu baax sëriñ Bassirou Mbacke mi nga xam ne tey moo waral sunu jataay bii ñu ñëw di ko liggéeyale sëriñ Touba fii wax dëgg yàlla sant rek lañ ciy def ñun ñëpp mboolem taalibe yëpp tey ñi fi dajee ñëpp. cant cant gu rëy rëy lañuy def ndax euh, liggéeyal Serigne tubaa ku la liggéeyloo moo la jariñoo euh, jariñuloo wax dëgg yàlla euh, liggéey yi namoon nañ namoon nañ ko lool rawatina ñun ñi nga xam ne dañoo féete Saalum ndax mën naa am wërsëg wi demeewut noonu waaye ñaq wi moom ñoo ko moom te te te sëñ Tuubaa sëñ rek lañ gëm kon kon buñ sañoon di am lii te lii mel ne ne gëj nañ ko am lool rawatina jëlee ko ci ku mel ne moom wax dëgg yàlla dañ eh, ñun ñun ñëpp suñu xol dafa sedd keroog la ma ko wax rek ne ko Mbàkke ñun eh, bu ma bu ma yoroon lu rëy rëy dama la koy jox sante la ko ndax eh, ndax kaay liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom wax dëgg yàlla xeme moon nañ ko ci yow lool te amuñ ko woon kon nag buñ buñ buñ gisee liggéey bu toll nii nga wooñu si ne kaay leen liggéeyal Sëriñ Tuubaa wax dëgg yàlla dañ ciy delloo santaat bu baax a baax mbokki taalibe bi yëpp bëgg nañ te feeñ na ci tool yi yéene ji jéggi na dayoo keroog it wax naa ko ko nee naa ko soo ko yaatalee ba bokki taalibe yi de <laughs> dana dana dana dana kéemaane ndax ndax da dootuñ fa xaj te du neex a organiser wax dëgg yàlla moom ñëpp am ci moom yéene yéene jooju feeñ na ci euh, ku gis démb ak tey ni liggéey bi mel nga xam ne tey tey jii mën nañoo mën nañoo wax ne euh, bu bu bu dutoon ni mu demee rek euh, mën nañoo wax ne jeex na kon nag la yéene ju ñëpp am ci moom rek la. ni mu mel ci Serigne Touba di ko liggéey la Serigne Touba ku ku ñëw mu ne ko dann bàyyi léppam. Euh, lu nekk mu dégg ko mën koo muñ euh, euh, daraam du soppiku wax dëgg yàlla ñun ñëpp ku ci nekk ci moom rek lay xool wax dëgg yàlla ñun ñëpp a ko yoreelu cant lii moom ñun ñun ñun ñi fi dajee ñëpp sun xol sedd na guy yàgg nañ koo bëgg a liggéeyal waaye lii ñoo ngi koy doog am kon nag ñun ñëpp ci maase sant ndax dañ koy delloo njukkal rek nu mënuñ koo fay dañ koy delloo njukkal rek la la ma sa Moustapha waxoon ci sëñ Abdou Hakim ba ba bam ne ma sa baay Abdou Hakim gërëm na la waaye na leer ne mënu leen koo fay Eh, da ngeen koy delloo njukkal rek waaye mënu leen ko fay ah, waaw kon nag kon nag ñu eh, ki nga xam ne foo foo xool sa baay rek mi ngi toll ci wetam eh, di ko liggéeyal guddeeg bëccëg wax dëgg yàlla kooku loolu lu mu la liggéey rek da nga koy santee jërëjëf tubaab kàlla jërëjëf jëf jërëjëf si déjjateek ya nga xam ne ci li sëñ bi bëgg daal ci ndigal li mooy daa bëgg fii leer nañ ba xam ne machines yi nga xam ne ñoo fi war a daw laam yi nga xam ne ñooy monté ëkk yi duñ ko mën a yàq garab yi duñ ko mën a yàq loolooy sabab sëñ bi jox nu ndigal nga xam ne dañuy daaneel garab yi dajjate ëkk yi ngir liggéey bi eh, liggéey bi yaakaar ngeen ne dana yàgg wala du yàgg. nun moom ay murit lan ndigal la ñuy jëf bu bu dee ñaari fan ñu def fi ñaari fan bu dee weer ñu def ko fi feeg sëñ bi noppiwut ci ñum rek duñ fi jóge waa noonu la ñu doxee waaw. lan ngay wax yeneen taalibe yi nga xam ne am nañ yéene ñëw fi te yaakaar ne léegi liggéey bi egg. Ah, liggéey bi Serigne Touba daal man duma ko xaare soxla man suñuy kilifa yi duñ ko xaare soxla ñun bu sëñ buñ jotee ndigal duñ xam ne kër ga dépassé nga fa amul lu ñuy wuti duñu tukki li feek nekkuñ ca liggéey ba ndax loolu deret la yoo xam ne dañ koo donn ci ñun deret la joo xam ne bu sëriñ tubaa soxlaa amatuñu soxla feek soxla si nga xam ne sëriñ bi matut dootu nekkat suñu bopp li may soññ taalibe yi mooy nañu xam ne mag ñi leen amoon liggéey sëñ tubaa leen ko jox tey kun fiy sukkal wala kun fiy defal teraanga liggéey sëriñ Touba tax ci la rawante képp koo xam ne nag bëgg nga ëllëg sëriñ Touba boo tàllee la loxo suñ borom fay la dangay ngay nangoo liggéeyal sëriñ bi man amila saalihan fali nafsi loolu la alxuraan wax waaw. jërëjëf sëñ ginnaaw yàlla ñu ngi sant sunu yaakaar ne Cheikh di gërëm sunu sang bu tedd bi di sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi tànd wér day ñaanal xalifa sëñ Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool tànd sëñ Modou Amdi Khady Fall mu yàgg fi lool tànd wér di ñaanal sëñ Bass Abdou Khader mi ñu jox liggéey bi di ko ñaanal mu yàgg fi tànd wér di ñaanal kullu taalib ak kullu dong yi fi teew ci liggéey bi di leen ñaanal yéen tamit ñii di ñii di borom rajo bi kon liggéey bi xanaa dañ ciy sant sëñ Touba Cheikh la ba yàlla bi ñu ci boolee ndax lii day sunu wareef bu xam ne nii saa yuñ jotee ndigal maanaam nii lañ koy mànkoo ñun ñëpp ànd ko taalibe di ko liggéey li ngir sàkku ci ngërëmal sëriñ bi ginnaaw yàlla nag loolu nag dam nañ ci ngërëmal sunu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Abdoulahi borom Kera Mbay ànd ceeg moom mu woo mbooloo mi woo taalibe mi woo ñëppam ay soppeem rek woo na leen ci liggéey bi te xam ne amuñu lu liggéeyal sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra ndax Cheikh Ibra daan daan dabe ndab te lii daa bokk ci wol ndabal góor yàlla mooy xidmaal waaju baax kon fi ñuy sàkku bokk kon ngërëm li ñu xam ne yàlla bool nañu ci bis bii kon ñu ngi ñaan tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabi alamina tey ñaanal sunu sang yi tedd yi ñu yàgg fi loolu te ànd wér di ñaan jéego yi ak jéego yi dellu yàlla nañu jéego yi wasaare ko ci bépp mboolum jullit ñëpp am ay xéwal ñëpp yokk am ak wér ànd ak kattan ginnaaw yi liggéey bi ñu ngi ciy santaat Serigne Touba mu ñu ci boole bu baax baax ak sunu yaakaar tey ëllëg yaa Cheikh Abdoulahi borom Kera Mbaye di leen sant di leen gërëm mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm soxna yeeg ñëpp teew nañ xanaa daal ñu ngi ciy ñaan wér ak kàttan jekku ndigal li lool day ñaan sunu sang mu yàgg fi taan déwéer ci barke Cheikh Abdoulaye borom Kera Mbaye ku baax yi sant nañ leen tamit gërëm nañ leen ndax reportage bi ngeen def tamit am na solo lool kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax yéen tamit ci barke borom Kera liggéey bi dañ ni ñu koy defee mooy saa su bu ngepp yi jiitoo bu ñu déjjatee ba dagg garab yi bàyyi ñoo wàllu ëpp kii tronc la tronc boobu ñun dañ koy gas bu ñu ko gasee ba jot route ba bot ba muy ren ba doog a jël sunuy baramin maanaam gis nga nii ñu koy defee gis nga ko bu ñu jëlee suñuy baramin maanaam dabu reen nga reen ba bu ñu ko daboo ba jot reen ba ba dagg ko doo ko sulli fee ëkk bi suulaat garab yi suulaat ko ba wax bi maasaloo ba xam ne travaux yi bu fi ñëwee muy tracteurs yi mën see jaar normal te am benn gàllankoor daal noonu lañ tàmbalee liggéey bi ni daal waaw maanaam maanaam daanaka waaw kii yenn saa yi mu taxaw si ñeenti góor yàlla yenn saa mu taxaw si ñetti góor yàlla ci ay xayma ci ay bi ñu ànd daal yenn saa mu ànd ak ñaari góor yàlla bu ñii di gas ñii di wàqi ñii di dabu but ba pour dindi reen ba ndax reen bi mooy tax bu si tracteur bi jaare du am benn kalkal daal day mën a dox normal liggéeyam looloo tax ñu koy à peu près bu ñëpp jiitoo barami ni topp si ginnaawam noonu daal lañ jotee ndigal li waaw noonu daal jotee nañ ko si ndigal li baax a baax ba ni waaw amagul nag ndax amagul ndax ni ma yaakaaroon liggéey bi comme tronc yi ñu fiy fekk garab yoo xam ne day ànd ak tronc xam ne dañ daan ñëw comme jamono yi ñu nekkee njoñik dañ daan ñëw dagg tron bi buñ daggee tron bi génne tron bi doog a gas but ba muy muy reenu garab ba doog koo dindi yàlla dimbali na bu ñëwee fi ba léegi ay ngeer lañ fi fekk ak ay rat waaw ginnaaw yoolal yàlla daal loolu tamit dimbal nañ ci liggéey bi ndax bi ñuy ñëw ci àll bi di ñëw yaakaar na ñun bu ñëw àll bu ñuul kokku lañ fay fekk wante bu ñu duggee ba ci tool yi gis naa ne daal ay ay ay rat laa fi fekk ak ak ay ay ay ay ay ay maanaam nu ñu ko waxee sax ay ngeer te loolu méttiwul pour génne ko daal waaw méttiwul daal waaw gis naa ne liggéey yi njëkkoon ak yii maa wuute wante sant nañ ci yàlla nag bañ fekkee daal liggéey bi ni daal waaw waaw waaw technique am na ci bu baax mooy li wax ba pare force bi am na ci ndax lu toll ne ay baramine xam ni pesé nañ booy xool ay ay quatre ay quatre kilos ak ay ngepp ma am kooku force koo yëkkati force boobu nag dañoo jàpp ne borom mbir mi moo ñu koy defal moo ñu koy defal bu baax a baax a baax waaw waaw wax boo gisee ay magum taalibe ngi fi ay xale ngi ci wante daanaka boo xoolee kenn ku ne sa force rek ngay demee kon xam naa ne liggéey sëñ bi ak mbaaxu sëñ bi dal na ci bu baax a baax daal waaw kon sant nañ bu baax a baax daal kon jërëjëf yàlla ngeen am jàmm yàlla ngeen yokk yàlla ngeen wér yàlla nañ daw ngërëmal sëriñ bi ci liggéey bi am kattan nag milliards yu bari nag ñu ngi ko ciy ñaan ndax liggéey sëñ Tuubaa lépp looy bëgg daan bu dee dam ak boo ci damm sax fasal li nga bëgg kon ñu ngi ciy ñaan milliards yu bari ba bu ëllëgee bu ndigal li ñëwee ñu def ko nu mu ko bëggee woon ci barke borom keere jërëjëf gaa ñu baax lu ci seen taxawaay si liggéey bi Cheikh Abdoulaye Mbaye moo woote liggéey bi taalibe yëpp ñëw wuy si ko sëñ Cheikh sëñ Bas moo ko jox ndigal li moom it mu woo ay taalibeem yëpp ay taalibeem am ci fierté ak ngëm-ngëm ak bëgg wuyu ko ci tool yi mooy lu mooy lu muy lu ñu neex di lu ñu bëgg xam na sëñ bi def nañu ci xolam mi ngi bàyyi xel ci lu wér ndax saa yu ndigal jugee rek mu wooñu yéen fekkuñu leen ca waañu mais ci waar wi lañ leen fekk waar wi lan ngeen ciy def. waaw waar bi dinañ ci jël ay ëkk dinañ ci jël ay matt yooyu tegale dinañ ci maye tamit ndox dañ ñu ko sant ñu di ko def. ana yeneen jigéen ñi. yeneen jigéen ñi ñu ngi ci waañ bi di lijjanti wàllum xéewlu añ bi gis nañ gis nañ ne fii yombul ci jigéen mu nekk fii yéen naka naka ngeen fii naka ngeen fii nekkee. waaw yombul waaye affaire bi ngëm-ngëm la rek ak bëgg-bëgg ndax defe naa moom góor bu jugee rek jigéen war naa mën a topp ci ginnaawam ba tax na bu suñuy kilifa jugee ñun dañoo topp ci seen ginnaaw di déglu nag lañuy wax ñu def ko di bàyyi seeni tere tamit di ko def ci Ibn Cheikh Abdoulaye mbay ci bëgg-bëggam. gis nañ la nga yor siwam ndox di maye ndox mais fii nit ñi dañoo tasaaroo euh, naka ngay def ba tey bu kii maree fii kii mar fee naka ngeen di def ba yit leen ndox. waaw da demee bu ndox bi jeexee da ngay dem nga duy ndox nga xool yi nga xam ne woon la pour nga may leen ndox nga may leen ndox ñooñu su fekkee siwo bi jeex na nga demaat si oto bi nga duy ndox. la ilaha laa ilaaha illa llaah faal laa ilaaha laa ilaaha illa jaam ñi laa ilaaha laa ilaaha laa ilaaha la ilaha illallah faal maam seere faal doy nga noo doy nga yàlla faal doy nga noo doy nga jam mbaa ngërëmoo ñoo ngi ñaan faal dellu ñaan Seex Muntaxa yàgg fee ñoo ngi ñaan Cheikh Mountakha yàgg fee addiya Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf